tànn ki ma neex muy naqari yow la muy neex it yow la bul di am luy tiit muy naqari yow la muy neex it yow la
Thank you.
soppi sama xalaat yaw xol seetul nawle seetul doomi nijaay bëggee la war a war loolay lu ma leer bu ma la gisee sama naxar day doon mbégte sama xalaat yow mbëggeel moom moo wóor dara mënu la tax ma soppi sama xalaat yow mbëggeel moom moo danaa leen xamal lu ngeen xamuloon bi sunu ñeenti bët yi daje ci laa doog a xam ni man mi ni taaram na kaarokaar mu tekkilam salma ma daanu miir mbëggee la wóor a wóor a wóor a wóor xol seetul nawle seetul doomi ni jaay mbëggee rekk a wóor looloy man lu ma leer bu réewee ma kontaan bu meeree ma jaaxle lool bu daagoo ma daanu miir ndax doxin wu teeyoon mbàggee la wóor a wóor a wóor a wóor a wóor. mbëggeel moom moo war.
saa jikko ji nga yore yow bu ko wéccee ko lu dee jikko ju rafet ji nga yore yow bu ko wéccee ko lu dee ma de ma ji sabu ma sa ma ji sabu yow bu ko wéccee woon ak lu dee ma de ma ji sabu ma sa ma ji sabu yow bu ñu soppi seen jikko ma de ma ji sabu ma sa ma ji sabu yow bu ko wéccee woon ak lu dee Madame Batista Wu, Madame Batista Wu, no puedo competir esto. Sabe que dito lloré, yo no puedo mi tiempo de ti, que con llora que ti no la ves.
yow bu ko wéccee ko lu dee ma dem ba ji saxul ma samba ji saxul yow dañ ko wéccee woo nag la dee ma dem ba ji saxul ma samba ji saxul yow dañ ñu soppi seen jikko ma dem ba ji saxul ma samba ji saxul yow dañ ko wéccee woo nag la dee ma dem ba ji saxul ma samba ji saxul yow dañ ñu soppi seen jikko Masamba jël ñeppem suul sabal mu jàppale foog na li mu xamul daal ko ci ko jaajiwul Masamba jël ñeppem suul sabal mu jàppale foog na li mu xamul daal ci ko jaajiwul Saji koji girl.
Oh wow. Take it down. Look at Take it down. Usman ana titi. Wal ma titi waay. Take it down.
السلام عليكم دنينا دنينا ديكو دادو دنينا ديكو دادو ما تخلمني دومنا سا آلنا ياهي Amaroy, amaroy, amaroy, amaroy, amaroy, ben. Si, si, jay, ana jay. Amaroy, le doyen de la musique sénégalaise, Ndiaye Seydi Mor. Chéri, ban na Ndiaye, Ndiaye Jaata, Ndiaye Garmi, ñaari yoon. Seydi Ndiaye, wàccati na loolu waay. Xam nga soo ma woowee damay teew. ma ne soo ma woowee damay ñëw ndax Sénégal yéen a xàll yoon yéen ay ambassadeur bi ci Sénégal tàcc leen loolu.
duma topp diw loolu soo ko déggee yéen fa ngeen jëm sorewul gor su ne war naa fexe may tëndiku ñu naan la yaa tooñ soo bëggee ku la gis jox la cër bi nga moom respectel say waa ni nga ma def ma dogal ga man gi la xaar dëgg-dëgg ñëwuloo yaa tax rendez-vous yi ma amoon ma puus leen gis nga fopp la rek moo tax ma teel a jóg préparé di la xaar lii moo tax li ma def metti ma lool respectel rendez-vous ndem bëgg ku la gis jox la cër bi nga moom respectel say waa ni nga ma def ma dokkër ga man di la xaar dëgg dëgg gisuma la yaa tax rendez-vous yi ma amoon ma puus leen gis nga No more, no more, no more, no more, no more, no more, no more, more, more, more, more, more, more. yow tam dama loo ma di ma toppatoo moo tax ma tàyyi del si si la seet si yow tax tàmmaloo ma di ma toppatoo moo tax ma tàyyi del si si la seet si yow tam tàmbaloo ma di ma toppatoo moo tax ma tàyyi del si di la seeti du ma topp diw loolu soo ko déggee fa ngeen jëm moo sorewul war su nekk war naa mooy tënk ku ñu naan la yaa tooñ soo bëggee ku la gis jox la cër bi nga moom respectel sa wax ni nga ma def ma toog kër ga man di la xaar ñëwuloo yaa tax ba képp ku ma nee ci nañ daje ma tàyyi dee dem tell teew I can give no more I can give no more because of the way du ma topp diw loolu soo ko déggee fa ngeen jëm moo sorewul gor su nekk war naa moytu ndik ñu naan la yaa tooñ soo bëggee du la gis jox la cër bi nga moom respectel sa wax ni nga ma def ma too kër ga man di la xaar ñëwuloo yaa tax ba képp ku ma nee si nañ daje ma bàyyi cee dem tell teew ak dina gis noo moom I can give no more because of the way.
Sénégal sori na moom gaañ yéenay jàmbaar maanaw maanaw maanaw jàmbaar bay sam réew di daanu sa doole immigré Sénégal yéenay jàmbaar Sénégal sori na moom gaañ yéenay jàmbaar oh waay jàmbaar yéen ay jàmbaar dëggu lool yéen a waral Sénégal naat yéen ay jàmbaar waaw xalaas. Jàmbaaro jàmbaaro jàmbaare Sénégal déglu leen ma tey laa leen di wax tey laa leen di wax li ci immigré ndax xale moom ki ko teewee moo ko mën a nettale demal mi demal mi demal mi maa ko teewee immigré Sénégal li mu jiital mooy di bàyyi xel ci askanam di bàyyi xel ci waajuram di bàyyi xel ci aada yi émigré yéenay jàmbaar waaye ku bëgg a tekki sonn waaw waaw ku dul yaakaar nga sonn lu metti jàmbaar lay dal émigré yéenay jàmbaaroo man la leer man la leer man la woon man la woon ani ku bëgg a tekki sonn waaw waaw ku dul yaakaar nga sonn lu metti jàmbaar lay daloo immigré yéenay jàmbaare ma leere ni ma leere noonu la leere ak tujaabe immigré yéenay jàmbaare
waaye bu la mooy indi
yéen a jàmbaar ku dëggu lool yéen a waral Sénégal naat yéen a jàmbaar moo tax ku bëgg a tekki sonn waaw waaw sunu yaakaar na sonn lu metti jàmbaar lay daloo immigré yéen ay jàmbaare man la leer man la leer man maa ni ku bëgg a tekki sonn waaw waaw sunu yaakaar na sonn lu metti jàmbaar lay daloo immigré yéenay jàmbaare man la leer man la leer man la wóor man la wóor man maa ni ku bëgg a tekki sonn waaw waaw sunu yaakaar na sonn lu metti jàmbaar lay daloo baale kan yow yaay jàmbaare man la leer man la leer chéri mama jooy baayu awa kanam yow yaay jàmbaar ooy bëgg a tekki sonn waaw waaw sunu yaakaar na sonn lu metti jàmbaar lay daloo immigré yéenay jàmbaare man la leer man la leer man la wóor man la wóor man moo tax ku bëgg a tekki sonn waaw waaw sunu yaakaar na sonn
ñëwal ñëwal ñu fecc fecc leen gaay yi fecc leen dindi leen costume yeeg karabaat yee sumi leen dàll yi takk ndigg yee ñëwal ñëwal ñu fecc
solidarité teel solidarité di ko ko mënee. solidarité teel solidarité di ko ko mënee. solidarité mooy dimbali sa morom baax na lool yéen ma ngi réew te leen xale yi digal leen lu baax wala leen lool. solidarité del solidarité ci boko manay solidarité del solidarité ci boko manay solidarité mooy dimbali sa morom baax na lool yéen ma ngi réew te leen xale yi digal leen lu baax wala leen lu baax Ci bokk ma leew. Ci bokk ja beew. solidarité mooy dimbali sa morom. dimbali sa morom loolu la yàlla santaane. solidarité sa jafe-jafe solidarité sa bâtiment solidarité sa kër. solidarité moo la war. boo ko jëfee moom mooy sa wareef boo ko jëful moom mooy sa wareef boo ko jëfee moom mooy sa wareef boo ko jëful moom mooy sa wareef yow buur bi mayewul dafa dénkaane Sayu ko neexee mu jël jox sa morom
ay dërëm dafa yëngoo di jëli jooba te bamba ka dem dina ko ne booba dafa ñu ngi sooga góoste mu ne maanaam man tax daaw son façon si mbiri yëngoon te kenn bi joola ay jooy yëngoon ay dara dafa ñëw di jëli jóoba te bamba ka dem dina ko ne booba dafa ñu ngi sooga góoste mu ne xaaral ma daw ba son façon si mbiri yëngoon nekk kenn bi joola ay jooy yëngoon képp kuy sénégalais am nga mbokk baax xarit bu suuf ak bu xam ba léegi léegi léegi ñu ngi si biir géej géej jógee mbànk la jël nga suñuy doom dëkk bi ñu joola ay doom rek militaire professeur étudiant artiste musicien soldat boy sunu bopp dañu lu muy jariñ mu du mala jël sama tubaab buñ ko defoon day dugg si lii bii di la wàññi juróomi téeméer ak juróom fukk ñoom ñoo sax ak yohan wante ñaari junni nit nekk si bi ay bàq ak i yoon di jëf mag juróomi téeméer ak juróom fukk ñoom ñoo sax ak yohan wante ñaari junni nit nekk si bi ay bàqaam ak i yoon dina suuf nag dëkk ci joola ay jooy yëpp xool ba mu yeewu ay portée nguur ne ko bii ñëwul jël si ñu xale yi ndax xamuñu géej mënuñu fay seen doom li métti na métti boo xam ne kenn xamul fu ñu jógee Sénégal la la métti na wante mësal sa bopp juróomi téeméer juróom fukk ñoom ñoo sax ajaar wante ñaar ci nit nekk ci biir ay bagaas ak yoo doo di na suuf na ndeke ci joola ay jooy
ma nga gis moo wóor yéen suñu yaay yéen suñu yaay booy jamono ji moo wóorul ku leen dugal nañu doy ñun góor ñi dañu doy waar ngeen baal ma dañu doy waar dañu lay bëgg loo ba nga bëgg ñu bëgg la ko wey ñëwal yow sama càmbi jéeg ma matale la ndaw si nga yor mu yam si sa loxo war na la doy yow sama càmbi jéeg ma matale la ndaw si nga yor mu yam si sa loxo war na la doy costume karawaat jëm sal booy ji yomb na léeg-léeg ñu yor oto romb la bëgg nañoo sëy ñun suñu fit yi ñoo toogul laay ko ci tëy di nga dugg ci lu la góob yéen suñu yaay yéen suñu yaay booy jamono ji moo wóorul ku leen dugal nañu bañ ñëw góor ñi dañu doy waar ngeen baal ma dañu doy waar dañ lay bëgg loo ba nga bëgg ñu bëgg rek bee ñëw la yow sama jàmbe déglu ma ma dolli la ndaw si nga yor mu yem si sa loxo war na la doy yow sama jàmbe déglu ma ma dolli la ndaw si nga yor mu yem si sa loxo war na la doy may ko naan ba nga jox ne am karawaat gi sa seere ko baama may ko ndox mu naan karawaat gi boo ko dindu lekk nga jox Ciii. Waaw waaw. yow sama grand nga la déglu ma déglu ma nga la déglu ma ma dolli la góor gi ma romb ci mbett mi te xamul fi ma jub mu ne ma piis ma dal di taxaw fii tey yem na ma nga soxla na ñëw sa gar bu dee jaral nga ko mu yegg see wanu la fulam dana bàyyil mu dem daat ni ngoro gi dina neex lool lépp nag bu yóot du soxot jaxas ba soobu ca biir a biir ba dugga seetlul ñaari buy génn dafay samp këram di wéy ni ngoro gi dina neex lool lépp nag bu yóot jaxas ba soobu ca biir a biir ba dugga seetlul ñaari buy génn dafay samp këram di wéy gane lan yow Moussa gane lan gane lan bay tama gane lan gane lan ma ne tama ji lu mu wax gane lan ñëwal loxo ci kaw loxo ci kaw waaw waaw tuuti ni goro gi dina neex lool lépp nag ku yóot du sa xat xas ba soobu ca biir a biir ba dugga seetlul ñaari buy génn dafay samp xëram di wet ne yemal yemal yemal ma ne rek leen yow mii ne ñëwal ñëwal ñëwal ma ne yegsil kon ñëwal ñëwal ñëwal ma ne yegsil sama grand def ma ni sa jigéen ne ni ñëwal ñëwal ñëwal ma ne yegsi loolu ma tooñam bu ñëwul ah du ma dem kaay kon ñëwal ñëwal ñëwal ma ne yegsi loolu Cheikh Tidiane Thiaw boo ñëwul ah du ma dem kaay
lu mu wax nga ne lan yow tamit lu mu wax nga ne lan ñëw nga ne lan ma ne tamit lu mu wax nga ne lan bay jama nga ne lan nga ne lan yow tamit lu mu wax nga ne lan ñëwal
Alaaji meilleur joueur Tony, meilleur goal, Firmino, meilleur entraîneur 2001. Collaboré Cristevano, Catricano, ay, Bocane, Kumaro, Tony Silva. Yeah, Tony Silva, tam ko Pelé, way, jogoy, ke Senegal, o, kum Senegal, ay. Man waxatuma qualification coupe bi laa bokk mu ñëw ci Sénégal coupe Sénégal yoo. Manuma dama naan dina màgg yàgg na ñaar waa joojo lay doon leen. Kaalis Jaw jogoy mbooro, Omar Dam jogoy mbooro, Ferdinand Coly jogoy mbooro, Hamidou Badiga jogoy mbooro, Aliou Dile jogoy mbooro, Ali Camara jogoy mbooro, Alaaji Diouf jogoy mbooro, Lamine Diallo jogoy mbooro, Pape Sarr jogoy mbooro, Pape Bouba Diop jogoy mbooro, Sylvain Ndiaye jogoy mbooro, Aduna yo dona mara wale ngewo jabya gate ma bale jodi gate sewo. Alaaji meilleur buteur Tony, meilleur goal Firmino, meilleur entraîneur 2001. Man waxatuma qualification coupe bi laa bokk mu ñëw ci Sénégal coupe Sénégal yoo. Mañana, eh, eh. Alaaji meilleur joueur Tony, meilleur goal Firmino, meilleur entraîneur 2001. Onda Mungaki Stefano Catricano, ay, Okane, Omaro, Tony Silva. Alaaji meilleur joueur Tony, meilleur goal Firmino, meilleur entraîneur 2001.
ngay dellu si man ni soo seetloo ni soo fàttalikoo ni soo jeexee fàttewuma naa fu ma fàtte man bàyyiwuma laa fu ma bàyyi obi obi delul si man ni soo seetloo ni soo fàttalikoo ni soo jeexee li ci xarit mooy gis sa bànneex si bànneexam li ci xarit mooy gis sa naqar di naqaram li ci xarit mooy mooy sori na be bànneex yéene bokk ree sori na be mettit yaay yéene bokk mettit ànd daal bu ci gën mooy bi lay wàññi ngir nga baax Jaxeel ba bu noon xam sa tiis dem di la waxtaane Jaxeel ba bu noon xam sa tiis dem di la waxtaane mu ñëw lu la dal yàlla day nattu jaam ba su ma lu ko dal yàlla wan ko wan wa di jóg sama daanaan sama daanaanoo Seydina Munaad Bakri Karamaan fàttewuma naa bu ma fàtte man bàyyiwuma naa bu ma bàyyi Obi obi dellu si ma ni soo seetloo ni soo fàttalikoo ni soo jeexee
ma fi dugg gaal jëm Rosso ñi di baraxoo mën nañ leen yuusoo gaal yi joowoo ñi di ñoosoo jigéen ñi meesoo mën nañ leen yuusoo di waaye mën a soo
li ci xarit mooy ci sa bànneex di bànneexam li ci xarit mooy mooy ci sa naqar di naqaram li ci xarit mooy soli na may bànneex yéene bokk réer soli na may mettit yaay yéene bokk mettit ànd daal bu ci gën mooy bi lay wàññi ngir
yow lu la neex ngay demee ndaan naan ay suñu wéy
ma fàtte wu ma la ma fàtte bàyyi wu ma la ma bàyyi obi obi jalu si man ni soo seetloo ni soo fàttalikoo ni soo jeexee fàtte wu ma la ma fàtte bàyyi wu ma la ma bàyyi obi obi jalu si man ni soo seetloo ni soo fàttalikoo ndey xadi yaa ngi gaañ Yaki nyoso, yaki ganyi, yaki nyoso, nyang balo.
ana njomboor tukeetina ana njomboor tukeetina sango mar dey tambambalo réew moo dem ñu wax la lii ana njomboor tukeetina ana njomboor tukeetina sango mar dey tambambalo réew moo dem ñu wax la lii suñu maam day bànneexu moom suñu maam day bànneexu moom lay tax ndeer doxantu na dëkk boo dem ñu wax la lii ana ñoo bokk keetina ana ñoo bokk keetina sama maam day tabaabaloo réew moo dem ñu wax la lii ndeke njomboor de am na buur ndeke buuram bi George la ndeke buuram bi kaana la ku ko weddee na dem gore ana ñoo bokk keetina ana ñoo bokk keetina sama maam day tabaabaloo réew moo dem ñu wax la lii foye nañ doomi réew mi ñoom foye nañ alalu réew mi ñoom foye nañ jàmmi réew mi ñoom Abdoulaye Diouf bind na lii ana ñoom bokk keetina ana ñoom bokk keetina sama maam day tabaabaloo réew moo dem ñu wax la lii ana njomboor tukeetina ana njomboor tukeetina sango maar day tambaamaloo réew moo dem ñu wax la lii ana njomboor tukeetina ana njomboor tukeetina sango maar day tambaamaloo réew moo dem ñu wax la lii suñu maam day bànneexu moom suñu maam day bànneexu moom lay tax ndeer doxantu na dëkk boo dem ñu wax la lii ana ñoo bokk keetina ana ñoo bokk keetina sango maa day tabaabaloo réew moo dem ñu wax la lii ndeke njomboor de am na buur ndeke buuram bi George la ndeke buuram bi Kaana la ku ko weddee na dem gore ana ñoo bokk keetina ana ñoo bokk keetina sango maa day tabaabaloo réew moo dem ñu wax la lii foye nañ doomi réew mi ñoom foye nañ alalu réew mi ñoom foye nañ jàmmi réew mi ñoom Abdoulaye Diouf bind na lii ana ñoo bokk keetina ana ñoo bokk keetina sango maa day tabaabaloo réew moo dem ñu wax la lii mooy président mooy gouvernement mooy directeur moom njomboor di dawali saret di seere boulon di laaj paas cey njomboor di jaayi yéen di sàppalitin di roofi yaboy cey njomboor lay wàccal balaa diig lay wàccal lay wàccal balaa diig lay wàccal lay wàccal balaa diig lay wàccal mooy président mooy gouvernement mooy directeur moom njomboor di dawali saret di seere boulon di laaj paas te njomboor di jaayi yéet di sàmba lijin di roofi yaboy te njomboor lay wàccal balaa diig lay wàccal lay wàccal balaa diig lay wàccal lay wàccal wàccal balaa diig lay wàccal mooy président mooy gouvernement mooy directeur cey jomboor di dawali saret di seere boulon di laaj paas cey jomboor di jaayi yéet di sàmba licin di roofi yaboy cey jomboor mooy président mooy gouvernement mooy directeur moom jomboor di dawali saret di seere boulon di laaj paas cey jomboor di jaayi yéet di sàppa licin di roofi yaboy cey jomboor
ndeke dama am gan bu mag ko ñëw ñëwal yu suma liggéey yu suma liggéey buur waaw jërëjëf Youssou na ngeen def waay loolu kay ma ne rakki bër yi moom dañu naan su ma nee góoru ndey ma ne rakki sëriñ moom ngeen di falloo góoru ndey ma ne rakki sëriñ moom moo bëgg sëriñ Tuuba kii de moo di falloo da ngeen naan góoru ndey ma ne rakki sëriñ moo falloo góoru ndey ma ne sama rakk jaagi falloo doomu sax xorom ma ni wiccax leen falloo yëgu doomu sax xorom ma ni wiccax leen falloo góoru ndey ma ne rakki sëriñ moo falloo gil sa taat ma ni gil sa taat di wala nga taat kon ci way ni maa la bee sàmb sama la pigéen tey ma ñaan gil sa la ci simoon kuru nay ma yu ballon xale bi dina tàccu leen pour yu ballon
yoruma nga ne ma nangu nga. waaye wax ma foo jëm man ma yóbbu la mbaa nga wax ma foo dëkk waaye man ma seet si la waay waay wax ma foo jëm man ma yóbbu la mbaa nga wax ma foo dëkk waaye man ma seet si la xool naa boo xool yow topp loo nit ki ngir lu mu am ndax bu doon am amoo du xaar ba léegi waaye soxna si ma ne bis dina ñëw de bur yàlla teral la jigéen ju baax ma ne day am yitte te am nga ko ba mu
amit soo ñëwul du ma def eh bi lay soo ñëwul du ma def ñëwal.
Oui, yeah. Ah, yeah. Bu ko bam mu dem woo ko digal ko ndax su ma nee dimbali la bu ko bam mu dem woo ko xelal ko ndax su xamee dimbali la ay ay yee laali li lalle la la la la la mënuloo ko bàyyi mënulaa bàyyi lu tax bu dul dara di wee mi ngeen bokk mënuloo ko bàyyi mënulaa bàyyi lu tax bu dul dara di ngeen ñoom bàyyi bee ay wuy rakk jee la li li la le waaw la la la la la su la yàlla boole mënuloo ko bàyyi bu dul dara di wéet mi ngeen nàmpa su la yàlla boole mënulaa bàyyi lu tax bu dul dara di geñoon bàyyi bee ah rakk déggu ma waawa yéey yéey la la la la wuy àdduna wa wa wa wa wa wa waay dooli bu ndaw la boo dee gone parce que loolu làkki woo tuddatoo gone lu ne ngay doon soo góorgóorloo yey yey yey waaw waaw góor suuraaleel ñi ëllëg di nga ëllëg góor yàlla ku sañoon ku la neex ngay juddoo waaye yàlla ñu boole ndey nàmp jox ma ma nàmp jox la nga nàmp jox taala muy saraka ba tax na ma lu ma la bàyyee waaw yow it ma lu loo ma bàyyee waaw waaw waaye la la la la la lee yow rakk mënu ma la bàyyee waaw waay ndaya namp jox ma ma namp jox la nga namp jox taala muy sa rakk mënu ma la bàyyee waaw waaw waaw déet bu ko bàyyi di di bu la bàyyi wow wow wow seet yow bu ko bàyyi yow sam bu ko bàyyi muy faale ale ku ko bàyyi ndongo du la bàyyi muy faale ey ndaya namp jox ma ma namp jox la nga namp jox taala muy sa rakk manu loo ko bàyyee waaw waaw wuy leele wuy leele ay manu ma la bàyyee waaw waaw waay wuy aale yi bongo yi di fay wow wow Seex Jàllo
yegg ba secondaire comme diplôme prime l'école yee l'école du seigneur c'est pas bon je visais mes fonds de toubé sur le banc de l'école rendu leen je ne n'aime pas la certificat d'études primaires je me rappelle tout enfant je faisais la CM2 je me rappelle tout xale boobu l'école primaire la woon sama dara leerul woon ci ñàng ñàngaan bee chaque jour maa ngi xool ñëpp mu ter sa ñaar ñoom sans visage ba tey di su traire la samedi daan naa noos du ma jàngi dimanche dimanche soir maa yee jaaxle lundi matin tey bu sekkat mi may xaar ak waa kon bu ñuul de les bons de demain les kànk derrière maam Cheikh yéen ñu naan ak suñu dara leen yëpp leen farlu leen mën a génn ci bal leen kee l'école primaire joone neen la jéegu leen xool leen mën a génn ci bee yi l'école primaire joone neen la farlu leen xool leen mën a génn ci bal leen kee l'école primaire joone neen la waaw waaw dimanche soir dama daan jaaxle découragé bu laay jaw ne allo Malabar si station bi xoolal kii xoolal ne kii daal xale la bul ko doon bul ko tiite xoolal ne kii daal xale la bul ko doon xoolal kii xoolal ne kii daal xale la bul ko doon bul ko tiite xoolal ne kii daal xale la bul ko doon xool waay i yow mi sama waa ji jàng du weet waaye jàng ji ba ngay gune baax na dara dara gënu la metti bëgg bi na leetar mënuloo mënuloo mënuloo ko xoole la xoole la xoole la gune la gune la gune la du ko door yow du ko diital xoole dongo jàngal ngir mu maam xoole la xoole la xoole la gune la gune la gune la du ko door yow du ko diital xoole dongo jàngal ngir mu maam
Adi, Adi, dama koy ni jaay tuura kante. Adi, Adi, dama koy ni jaay tuura kante. Mani doomi kii di jaay, mu waru daw. Bam na naa juudi ne moom mii mu nekk baay. Adi, Adi, dama koy ni jaay tuura kante. Mani doomi kii di jaay, mu waru daw. Bam na naa juudi ne moom mii mu nekk baay. waru jëg waru ragal moom waru daw xam na naa tuuti moom mii ku mu nekkoon ku daw yàlla lu ko dàq jaana fa jaan kooku du buur moom du mu ngi ku daw yàlla lu ko dàq si na fa jaar kooku du buur moom du mu ngi doomi kii di jaay du ragal yow fa nga def fa laa ko def yow fa nga jëm man fa laa jëm yow la fa def moom la fa ba yow la fa gis moom la fa xool soo xamoon li lay yor di nga bàyyi li nga yor man fa dajay mu doon ak saay yow fa ko teg fa laa ko teg yow fa nga jëm man fa laa jëm yow la fa gis moom laa fa ba yow la fa def moom laa fa moom soo xamoon li lay yor di nga bàyyi li nga yor man fa dajay mu doon daal saay mani baabel ku fi sant jaay ku fi sant jaay ku fi sant jaay waroo tiit waroo ragal ku fi sant jaay alaaji jaay ku fi sant jaay waroo tiit waroo ragal alaaji jaay doomu kii di jaay doomu kii di jaay waroo tiit waroo ragal mani baabel mani baabel
ñuul ñuul ayu kabaata man mi ñuul
affaire bi leer na leer na leen leer na fii ci Afrique am na réew yu ma soppa loolu comme benn baga doxantu ba Mali ñoom ñu ngi doxal tamit yoonu démocratie ndax sogloo dem na waaw ma nekk réew bu ñëw na toog démocratie nii la war a demee man xool naa ba gis ni africain kenn waruñoo jaawale kon su ma sañoon réew africa yëpp a doxal démocratie ATT dem na waay ma ne ko naare ñëw na toog démocratie nii la war a demee ATT dem na waay ma ne ko naare ñëw na toog démocratie nii la war a demee eh am nga coup d'état viva Africa démocratie am nga coup d'état viva Africa démocratie kon am nga coup d'état viva Africa démocratie
kóllëre sagawlo moo la woo maa sagawlo sagawlo sagawlo tout le monde Baba Benji man ay sette buubu yaati eh Baba Benji man ay sette buubu yaati Baba Benji man yéen waa Podor yeewu leen ne Baba Benji man Fuuta Tooro yeewu leen yee. Baba Béji Maali. Tubaalo yi yeewu leen yee. Ndaysireek, Bokar, Amadeek, Asada, Aysata, Asad Maale. Sagawlo moo la woo maan. Sagawlo moo la woo maan. Sagawlo moo la woo maan.
Bonsoir Koumba. Comment ça va Kaolo? Pourquoi tu n'en veux pas t'approcher de moi? Pour le bien-être, ben, c'est la paix. L'amour, c'est une maladie. Aucun docteur ne peut soigner sur la
Sagawlo moo la woo maa sagawlo sagawlo woo Baba Béji man. Baba Béji man. Podor yeewu leen yee. Baba Béji Maali. Fuuta Tooro yeewu leen yee. Baba Béji man. Tubaalo yi yeewu leen yee. Gisa mara yee, mamara dadadaama. Seydi sama dadaadaama. Sagawlo
Merci beaucoup.
ñi ni woon du ko def ak ñi ni woon manu ko ñi ni woon jàngu ko ñi ni woon xamu ko ko defee yéegi ñi ni woon du ko mën ak ñi ni woon àggu ko ñi ni woon xamu ko ñi ni woon jàngu ko ko defee yéegi farba nit ki su maandoo lu ko dégg mu mën na ko yor farba sengoor nit ki su maandoo lu ko dégg mu mën na ko yor jàppal ma jàpp sa morom jàpp waaw ndax ma tane solidarité lañu wax bala ngaa laaj sa wàll ci réew mi seetal la defar réew mi bala ngaa laaj sa wàll ci réew mi seetal sa waa ci réew mi ñu ni woon du ko def ñu ni woon jàng ko ak ñi fi nekk di wax nim ko defee ñii ngi ni woon man ni laa mel taxul waaw ma gëm la su bëggee ñu nangu la da ngay dee ñu gis wax ju bari buñ ko bàyyi suñu réew mën a dem jàng na ko jàngu ko xool leen tey moom def na ko yow wane nga ni nit ki moom dafa war a am pas-pas lii jëme réew kanam wane nga ni buñ la fekki yaa ngi ci te réew mi toll na fu nga xam ni jàppal ma jàpp rek moo nu ci génne solidarité lañu wax wàllu wi nga féete xam naa ni man yombul dafa fekk ne nit ku amul Pastef duñ la mën a dégg loolu oui jàpp leen ñu jàpp solidarité ndax sama waa ji sama waa ji ndama ngi ci gàccee gi ji waaye solidarité la ñu wax solidarité jàpp leen ñu jàpp solidarité jàpp leen ñu jàpp solidarité solidarité
su ma jógee ñu naan ma dof bi dofu ma bëggee la ma tooñ sama diggante ki ma bëgg yàlla laa koy seedee
sagal nga ma xam nga li tax ma bëgg la ku dégg ba cëg nga may dëgal dégg daaj yi nga taxal waaw waaw li doo nga tax ma bëgg la waaye saa yu guddee ba lépp dal ba géeju la dem yëpp di wal ku nekk naan ku may defal samam xel yow rek lay xalaat baax nga yaru ngaay muñ nga maanu nga daaru nga tabe ngaay ay booy li tax ma bëgg laay saa yu guddee ba lépp daal ba géeju la dem yëpp di wal ku nekk naan ku may defal sama xol yow rek lay xalaat ay ma doon na tool bi nga xamante ne yaay booy ki ko bëgg koy terrassé pour du ko di ko roose saa yu meññee mu mën ñoo jëriñ su juraay la gi lee saa yu juraay la gi lee nema li jajam kaw ñetti meju kanam ku bakan ah duma telang ay jadi nema di di redan man ma di ko sama redan ay yow la waxal te xam nga ma yow la nabit waay waay waay sagal nga may xam nga li tax ma bëgg la su dee ba ca nga may bëgg la dégg daa di nga saxal li tax nga tax ma bëgg la waay de bëgg naa la bul ma taraayil ñaanuma ko yàlla du ma la taraayee Sëriñ boo xamoon ni nga may def du ma taraayil ma ñàkk sama yaay wooye nekk ci sa baay boy Soo xamoon ni nga may def ba du ma taraayil ma ñàkk sama yaay booy du ma la taraayil man bëgg naa la Mujjee dafa metti xol melo waaw Boubacar Ndour góor ngoone Ndour la Soo xamoon ni nga may def ba doo ma taraayil ma ñàkk sama yaay booy du ma la taraayil Soo xamoon ni nga may def doo ma taraayil ma ñàkk sama yaay booy nekk ci taabaayo yow dara dàqul nga wét ak sa xol ci néeg mu lay raay di la fóon nga koy xool sa xol di bég waa cofeel gi ngay am su la jegee mooy li nga yëg sa xol bu fa loxoom tegee ha kaddu du jib xolay wax ne ma li ji xeeñ bin bin di feeñ rax ci petit cola mu ngeeñ suma ma d'intimité moo dàq suba la korité wét ak yow jaral na ma daanu ci te ni ndate fleur de mon cœur, racine de ma vie. Loo wax loolu la soxlawul sama avis. mi ngi tudd chéri sant boy mooy sama lu ne sans moom damay sooy.